daa leen di yàgg naa leen ko wax da am taw taw fexe leen ko may xaas la am ñoom ñu ngi nekk ci li gën a xas dégg xaas la am xaas xaas ngeen am waxuma sun borom maa ngi lay dellu di la ñaanati bil muminina ci barkeb saar wi ñuy tuddee suuratu almuminuuna ñi ne ko looy ñaan mu ne xab na nga may lii ñal ma al imaana gëm yàlla waxab yàlla na nga may lii ñal ma al islaam ak islaam wal ixsaana ak ixsaan ta mooy rafetal def te yàlla tax mu ne yàlla maa leen ci barkeb muminina saaru julit ñi waaye nag dafa am mandarga yoo xam ne sun borom tabaaraka taala da koy wax ci njëlbeenuk saar gi ngir bañ rek kenn ku ne defe ne jullit nga te fekk sa jullit matut eh, damay faral di wax ne eh, saar wii li yàlla fii rek moo dal sëriñ bi ci melokaanu murit sëriñ bi nee ne arbaatun nasamtuha xawfa dama bañ kenn ku ne defe ne murit saarix la te fekk doonoo ko ma taalif ko nag wane kan muy murit ay mandarga suratul muminin suratul muminin lu tax yàlla tuddee ko muminoon ba tey dafa am mandarga yoo xamee ne képp kum nekk ci moom ñi ne kii kat dana bokk ci allasiina yarisuunal firdawsa hum fiihaa xaaliduuna yàlla su ko waxutoon na lii mooy dëgg-dëgg ñi texe konoon kenn ku nekk mën ngaa defee ne texe nga su ko defee nga woru yàlla loolu la bañ sëñ bi itam loolu la bañ ñi ànd ak moom yëpp dane sifaatu saadiqil muridi bi ixtisaar la wax yàlla itam saar wi lim ci nettali ci melokaanu jullit bi ixtisaar la yaa ngeen dégg sëñ Abdulaat mu baax ma ay jotaayam yu bari ay yi la daan fàttaliku xadaaf laal moomi noona ba ay ya jeex di waxtaanee rek melokaanu julit dëgg-dëgg balaay kenn ci ñun di defe ne dëgg nga te fekk nag doono ak jullit te fekk nag bu ak waru ngay def su ko defee yàlla leeral ko ñëpp xam nag lii mooy dëgg-dëgg melokaanu jullit kon lépp lépp juróom-ñeent aaya la mooy melokaanu jullit dëgg-dëgg mi ngi tàmbali ci sunu borom mi ngi tàmbali ak ñun wa ba'du a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahir rahmaanir dane xada aflahal mu'minuuna xatuk tànqir la ndax faasa faasa la aflaha la di max naa julit ñi dëgg-dëgg texe nañ nga ne ah man est ce que bokk ma ci nga ne man est ce que bokk ci jul yi kon kay texe naa yàlla na xoolal sa bopp ab seetu la xada aflaha texe na ci dëgg-dëgg texe ala mu'minuuna woy gëm ñi way gëm ñi suñ ko waxee mooy ala aamiluuna bi sarxihi ñiy jëfandikoo sariya bil husuli ala ma yatlubuna wa najatu mimma yarhabuna ñooñu mooy ñi nga xam ne texe na ñi nga xam ne dañuy topp sariya ñu ne ko yàlla ndax kuréel bi melokaanu woowu rek lañ leen di xàmmee ñi texe dëgg-dëgg ndax dangaa jékki-jékki rek ne xadda af laal mooy noona dëgg-dëgg way gëm ñi texe nañ ñan mooy ñi gëm ñi mu commencé ko firi bu mu rek ba aay ji daan rek da koy firi ba juróom-ñeenteelu aay ba mu ne mooy lan allazina hum fi salaatim xaasona mooy ñi xam ne suñ nekk ci seen biir julli dañuy toroxlu dañuy dal dañuy dalal seen cër seen xol dañ ci sànni lépp luy mbiram adduna jublu seen borom maanaam suñuy julli dañuy teewlu ci seen xol ci seen borom di toroxlu seen cër yi seen rukon ya seen sujjóot yëpp day dal waaw boo leen gisee ñu sujjóot da ngay xam ne ñii ñu sujjóot lañ bokk rek saari julli yi nga xam ne moo xew léegi nga xam ne soo rukon yàkkamte nga siggi waaye itam soo sujjóotee yàkkamte nga toog kenn xamul julli lan rek suñu borom ne dëgg dëgg julli ñi tax mooy allasiina hum fi salaatim xaasoon ñi nga xam ne suñ nekkee ci seen biir julli dañuy toroxlu waaye dañuy dalal seen cëri waaye seen xol dañ ciy génne lépp luy adduna loolu mooy toroxlu yàlla ñu ne ko ndax loolu rek mooy mandarga mu ne déedéet wallasiina hum ani laxwi muxridoona ak ñi nga xamee ne moo xam seeni wax ak seeni jëf lépp lu ñuy wax wala mu nekk ak jëf su fekkee yiw nekkul ci rek dañ koy dëddu bàyyi ko loolu mooy wallasiina hum ani laxwi muxridoona ñi nga xam ne dañuy dummoy lépp luy neen luy mooy yàlla moo xam ñi koy jaaree seeni wax wala seeni jëf ñoom du leen ca fekk de lu ñuy wax daal yiw lay nekk jullit dëgg-dëgg lu muy jëf maanaam da koy wóor na ko lii yiw ci nekk. kon julit du fekk loo xamee ne lu waxuut la mu di ko wax wala lu jëfuut mu di ko jëf loolu yëpp da ko war a wan ganaw xeeti caaxaan yeeg foo yëpp da ko war a wan gannaaw ñu ne ko ñun ñuñ foofu lay mboola mu ne déedéet des na de ba léegi moom lay firikat dëgg-dëgg jullit ñi texe mu ne wala siinahum li sakaati faa'iloona mooy ñi nga xam su ko defee nag alal jiñ am dañ ciy génne di saraxa waaye nag rawatina lu ñuy wax génne asaka ndax génne gu ñi génne asaka def leen di génne ci bépp il te itam dafay laabal seen alal ya ci génne gi ñu génnee asaka kon julli dëgg-dëgg dafa war di saraxa ñi nga xam ne moo leen tere waaye itam génne asaka farata la ci moom mu di ko def wala siina hum mooy gaa ñi nga xam ne faa'iloona li sakaati di maanaa li sakaati faa'iloon mooy faa'iloona maanaam suñu war a génne asaka dañ koy génne taalal jooju ñuy génne daf leen di laabal ñoom ñi koy génn waaye dafay laabal seen alal di ko gën di yokk ñu ne ko ñooñu rek la mu ne déedéet mu ne wala seen hum li furoojim xaafisona mooy ñi nga xam ne seen pëy yi duñ ci njaalo mukk bu dee jigéen dégg nga bu dee góor a ci am duñ def liwaat lu ñuy wax liwaat muy ñaari góor di sëy mbala lu ñuy tuddee ñaari jigéen di sëy wala benn koo xamee ne am na borom kër doon jigéen koo xamee ne ba tey am na soxna doon góor dégg nga duñ jotee mukk te sëy doxul seen diggante sàmm pëy moom noonu la mooy yow mi nga xamee ne góor nga amagoo soxna ab salibader nga bul jotee mukk doomi jàmbur joo xamee ne daganut la maanaam takkuñ ko ci yoon ci sariya yow mi am ba tey soxna fexeel ba bul jël soxnay jàmbur wala doomi jàmbur ju amagut borom kër di joteeg moom da ngay fexe sàmm nag sa pëy sa pëy soo koy foo ko mën di def rek na nekk koo xam ne leew na la sa soxna kese wala siinahum mooy ña nga xamee ne xaafisoona way sàmm lañ li furoo jim ñeel seen pëy ya mooy duñ ca njaalo duñ ci duñ ci def mbiram góor jigéen ak xeeti fawaahis yëpp dañ ciy fegu dañ ciy fegu ba seet ñu ne ko yàlla ndax ñuñ rek la mu ne nag lii ma leen firil wala si li furoo jim xaafisoona dëgg-dëgg julit ñi texe mooy ñi nga xam ne dañuy sàmm seen pëy yi mu ne ah ilaa ala aswaajihuma aw ma malakat aymaanum fa innum xayru malumina seen soxna yi moom diw ma diwlu ma leen ñu sàmm seen pays seen soxna la seen tool la bu leen neexee heure bu ñoom wala li nga xamee ne su ko defee aw maa malakat aymaanuhum muy lu mel ni ay jébéer bu ngeen demee ci xare ni ngeen fay jàpp ci ay jam ay taara yooyu moom ba tey seeni soxna lañ su leen neexee mën ngeen di jot ak ñoom ñooñu su ngeen jotee ñoom dégg nga ñooñu moom kenn du leen yàdd waaye nag damay bañ ngeen jéggi seen soxna yi wala seen taar yi su ko defee nag dem ci ñeneen di joteeg ñoom di jëf jëfi njaaloo jullit moom du mel noonu sun borom teg ci na fa mani fa mani taxaa wara asaalika fu ulaayka humul adoona képp ku sàkku gannaaw lii ma lim dem def lu la neex a ah, na nga xam ne jéggi nga fekk nga lu dagan nga jéggi ko jëm ci lu xaram te loolu mooy lan mooy booy julli doo toroxlu lu la neex wax lu la neex def lu la neex jëf lu la neex yéene doo génne asaka doo sàmm sa pëyi dégg nga yow doo yem ci say soxna doo yem say taara waaye da leen di jéggi dem ci soxna jàmbur yi ak doomi jàmbur yi yàlla nee ne képp koo xamee ne sàkku na gannaaw lii ma lim fa ulaykumul xaadoona gaa yi ma lim nga ne dañoo jéggi dayoo ci mooy yàlla dañoo mel ne lu fekk lu dagan ñi bàyyi ko fi dem ci lu xaram te bàyyi nañ xatte yàlla yépp wala siina hum li amaanaatihim wa ahdihim raxoona ba tey melokaanu julit lay wax mu ne mooy ñi nga xamee ne li amaanaatihim seen amaana maanaam dénkaan yi nga xam ne dañ koy dénkati seen biir dañ koy sàmm ba tey seen kóllëre yi dañ koy sàmm ba duñ ko sànq dañ koy matal lépp luñ signé kóllëre rek dañ koy matal duñ ko sànq lépp luñ dénkandi seen biir mbaa ñi signénti ko ci wàllu kóllëre rek dañ koy matal dañ koy sàmm jullit noonu lay mel nga déggee ci ne kon jullit di fecc ci kóllëre doo ko denc dara mu sàcc ko mbaa mu yàq ko wala mu lekk ko ñi ne ko ñooñu rek la mu ne déedéet wala si yéenuma ala salawaatim yaafisona mooy jullit dëgg-dëgg ñi tax mooy ñi nga xam ne seen julli yi dañ koy sàmmante di ko saxal faw bu dee sàmmante julli mooy koo xam ne su waxtu jotee da koy respecté da koy def dakoy koy waajal sax balay ñëw. te itam waxtu wu ni noonu la koy tegelante du ci jël benn waxtu te itam da koy saxal waaye julli tey fajar bala ngay julli takk takkusaan jot boo jullee takkusaan bala ngay julli ken xamut am na ñoo xam ne sax duñ matale julli loolu nag caaxaane julli la moom la yàlla di wax na fooy nu lil muslimin allazina an salatihim sahun yàlla ci al musal kon wala siinuhum gaa mooy gaa ñi nga xam ne yu xaafasoona dañuy sàmmwante ala salwaati seen julli ya maanaam dañuy saxal seen julli ce waxtu wa lañ koy joxe te ponk yëpp ya war yaag yuñ sopp yëpp dañ koy matal yàlla ne ñii ma lim dama bañ ngeen war mooy melokaana dëgg-dëgg julli te mooy ñuy texe ñi ne ko ñooñu moom fu ñuy dëkk ëllëg yamal xiyam mu ne ulaayka humul waarisuuna ñii gaaykat ñoom la ñuy melalee melokaan yii nga xam ne moom laa leen limal yàlla nee na humul waarisuuna ñooy donn aljanay firdawsa allazina yarisuunal firdawsa hum fiha xaaliduna mooy ñi nga xamee ne aljana ji gën a kawe ñoom ñoo koy donn te buñ fa buñ fa duggee dañ fay sax faw te xéewal du dagg mukk waxtu ne day gën di jolli te firdawsi mooy ahla manasilil janati te wax wa ahla manasilil janati wa awsatuha moo ci gën a digg doome waaye moo ci féetee kaw ci barab yi nekk ci aljana yëpp ak lu ñuy neex-neex kon yàlla nag nee na damaa bañ ngeen waru moo tax nag ma waxal leen dëgg-dëgg lan mooy melokaanu jullit ñu texe su ko defee nag kenn ku nekk man nga ci xool sa bopp defe naa ne kon nag loo xamee ne bëriwut kenn ku nekk yàlla day bañ rek di ko saraaxa muy gudd mu def ko nag lu gàtt ba tey li ma ci yitte rek mooy munaasaba bi bi sëñ bi waxee ne maa ngi ñaan ci barke mu'minina yaa ngi doon déglu sëñ bi ñaan leneen may ma nangam may ma nangam waaye li mu war a ñaan rek lii tax nit ki texe dëgg-dëgg texe mooy nga am iman am islam am insaan mooy tax nag nga bokk ci lal xadaaflaal mu'minuuna allaziina fi salaatihim xaashi'uuna ba juróom-ñeenteelu aaya ba ñooñu mooy allaziina yarisuunal firdawsa hum fiihaa xaaliduuna boo bëgg dëkk daal ci aljana yi gën a kawe gën caa neex te boo fa duggee xéewal yi du dog mukk waxtu ne day gën di jolli fexal nag melokaana melokaan yooyu moo tax sëriñ bi ne bil mu'miniina yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb sóoratul mu'miniina muy saari way gëm ñi ñi nga xam ne mooy jullit ñi texe xab na nga may li ñal ma al iman gëm yàlla wa xab na may li ñal ma al islam islaam mooy koo xam ne day wuyee santaane suñu borom yi li yàlla rëdd ci sariya yépp dégg nga bala ma ko jëfee da koy jàng ba xam ko xàtt yeeg lépp koo koy islam wal ihsaan ak rafetal mooy tasuuf mooy di jaamu suñu borom dégg nga ba mel ni yaa ngi koy gis ndax yàlla su fekkoon ne ñu ngi koy gis kenn du ko ñemee mooy waaye ñàkk gis yàlla gi rek moo tax nit ñi di ko mooy kon moo mooy jaamu gi daal na sell na yàlla rek tax bu mu rax dara na yàlla képp képp tax di jaamu yàlla bu mel ni yaa ngi ko gis léegi su fekkee gisoo yàlla sax xamal ne moom mi ngi lay gis léegi xam gi nga xam ne yàlla mi ngi lay gis te mënoo ko gis loolu aw soññ la ki ragal yàlla dëgg su xamee ne yàlla mi ngi koy gis dafay fuglu waxtu ne bu doon mooy yàlla sax dana ah yàlla mi ngi may gis lii du ko def du ko def jut na nga may lii ñal ma bil ikraami sak taral wa sutuuri ak sa sutura xuna fii ci aduna wa fii xaddan ak ëllëg yamal xiyam wa fii ak ëllëg yamal bi xaqi nuuri ci barkeb suuratu nuur yàlla dama bëgg lu ñuy wax say tiraanga waxtu ne nga ko may lu ñuy wax sutura waxtu ne nag ma di ko may fii ci àdduna ak alaxira bu ma tàggoog tiraanga ak sutura dafa ñaan loom solo ndax tiraanga lu muy bëri bëri te sutura amut sa lépp xawee ko waaye dafa xool ñaar gën mu ñaan ko ci barkeb suuratu nuur yàlla may ma sa tiraanga fii ci àdduna ak alaxira waaye itam bu ma tàggoog sa sutura sutura su xawee ko yàlla ñu ci yàlla musal booy xool jamono ji kenn ku ne soo xamee ci sa moroom lu ñaaw wokk dégg nga tasaare ko waaye soo xamee ci moom lu rafet da naan mekk doo ko nangoo wax kenn loolu yëpp ngir jamono ji yàqu rek ak mujjanteelu jamono sëñ bi ñaan yàlla may ma sa keral ma am sa keral waaye itam may ma ma am sa sutura yàlla bu la nga am sutura faw dégg nga yàlla ne ne képp kuy sutural jaam ñi fii ci àdduna bu yowmal xiyaame man yàlla ma suturaal la ba kenn du xam sa ñawteef bëri na ku ñëw yowmal xiyaam nga defe ne amul ñaawteef am na ñaawteef de parce que dafa dafa bëri lu mu daan suturaal ab jaam ci àdduna ba mu demee yowmal xiyaam nag yàlla bañ kenn xam ñaawteefam yàlla na ko yow nag dama lay sutural ndax nag ba nga nekkee ci àdduna da nga daan fekk jaam boo xam ne suturaam dem na bay xawee ko nga takkaar ko ba mu nekk morso ba mu gën a dëgër kon yow nag tey dama lay suturaal kenn du xam soo ñaawteef su ko defee nag ma tàbbale ci aljana gis nga ba tey munaasaba boobu ndax sóoratu nóor dafa am benn jaamab yàlla boo sunu borom dana ci nettali xisaam mu bokkoon ci soxna si soxna yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy sayyidatuna Aysatu radiyallahu anha xoolal ni ko yàlla suturaale biñ ko tuumaalee mbiram njaalo yàlla setal ko ci loolu sutur la waaye teraanga foofu la yem ñi la ak tuumaal nu mu méttee rawatina ñi tuumaal ku mel ni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñoo xam ne soo leen tuumaalee rek rey nga leen walaay lasim moo tax sëñ bi nag mun naa saw bopp mu def ni sunu borom suturaalee woon na Aïsatu radiyallahu anha ba setal ko wàcc ay ay setal ko ca ñëpp ko ñëpp ñu ko ko ñëpp suturaal ko teral ko sëñ bi ñaan waaye li tax sunu borom tuddee saar suuratu Nuur mooy dafay nettali ne moom ci boppam leer goo mën a gis rek ci moom la bay ko asamaan si leer gi ci nekk yàlla la. suuf ci yàlla la lépp yàlla la wax na ci biir saar wi sax ne wa man lam yaj'al llaahu lahu nuuran famaa lahu min nuurin man yàlla képp ku ma def ci moom leer kooku day dox leer gi di ko gindi kon safaan bi nga déggee ci ne am na ñoo xam ne ci lëndëm la ñuy dox waaye am na ñoo xam ne ci leer la ñuy dox wa man lam yaj'al llaahu lahu nuuran famaa lahu min nuurin ku ma def ci moom leer nga am leer ku ma defut ci moom leer doo am leer waaye nag li tax mu rek aaya ju gudd ji mooy allahu nuuru samawaati wal ardi masalu nuuri ka miskaatin fiiha misbaahun al misbaahu fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkabun duriyu yuqadu min sajaratin mubarakatin saytuna la sarqiyatin wala qarbiya yakaadu saytuha yudii'u walaw lam tamsashu naarun nuurun ala nuurin yaadillahu li man yasaa'u kon gis nga gindi ci ku mu soob ku mu neex rek moo gindi ci ak leeram dégg nga kon mu ngi noonu moo tax sëriñ bi ne yow suñu borom na nga ma may sa teral ak sa sutura ci àdduna ak alaxira ci barkeb suuratu Nuur mooy saaru leer jut waaye nag nanga may lee ñel ma bil xufraani sa njëggal wari diwaani ak sa ngërëm wala xel ak xam-xam wala xamadi ak jëfee xam-xam ba bil furqaan yi ci barkeb saar yi ñuy tuddee furqaan yàlla may ma sa njéggal jéggal ma yàlla may ma sa ngërëm ngërëm ma gërëm ma yàlla may ma xam-xam yenkiwal ma xam-xam waaye itam yàlla tàggatal ma samay cër ñiy jëfee xam-xam ba maa ngi la koy ñaan lépp ci barkeb saar yi nga xam ne mooy saar wu ñax suratu alfurqaan alfurqaan mooy loo xam ne dafa ñëw teq teqali masalan ala sabili misaal diggante lépp lu dagan ak lu xaram yi man koo xam waaye ak lépp loo xam ne neen la ak dëgg liwato guñ doon liwato loolu moo tax mu bokk ci turu alquran ñu koy furqaan wala qad aatinaa muusal kitaaba wal furqaana soo ko defee xatful bayan nga xam ne téere ba ñu joxoon Moussa ba tey loolu rek moo ca nekkoon téere yi ñu joxoon yonent yi dañoo ñëw ngir fekk dëgg ak neen di jaxasoo ñi ñëw ngir fexe caqali ko loolu nag moo tax ñu tuddee ko jëmmi baatab furqaan. jàng mel ni Moussa yitam wala ku mel ni Haaruna ñoom ñaar nga xam ne bokkoon jamono wala xada atina Muusa wa Haaruna al-furqaana gis nga wa diyaan wa sikra lil muttaqiina ah ñun yàlla ñoo joxoon Muusa ak Haaruna tawraat dafa ñëw ngir faaraqa bayna al-haqqi wal baatili wal xalaala wal xaram wa hidaayatun liman amana biha wa taskiran lil muttaqiina li rabbihim téere bañ leen joxoon yàlla neen dafa ñëw teqali dëgg ak neen ak lépp lu dagan ak lu xaram waaye dafa ñëw ñi gëm ñi gëm mu di leen gindi di leen fàttali ñi jëm ci seen borom. bay xool sax suratul furqaan baat bi li tax ñu tuddee furqaan mooy baat ba tey dafa rot ci biir saar wi bismillahi rahmaani rahim tabaaraka allazi nasala furqaan mooy aay ji njëkk sun borom dafa jékki-jékki rek a ah sa borom tabaaraka tabaaraka mooy taxaa sama wa xayru mooy rëy na ay yiwam bëri na moom lañ koy fire mooy ku barkeel waaye bu jëlee ci yàlla mooy koo xam ne yiwam bëri na rek la ñu koy mooy ki nga xam ne yiwam na kan mooy kooku mu ne nasala alfurqaana ala abdihi li yakuna lil aalamina nasira kooku mooy ki nga xam ne moo wàcce alquran ji nga xam ne dañ koy tuddee furqaan mooy loo xam ne faaraqan bayna alxaqi wal baatili mu wàcce ko ala abdihi wa rasulihi muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wàcce alquran ji nga ci yonent bi nga xam ne yonent bi jaamam yàlla la alquran li tax yàlla wàcce ko mu ne dafa ñëw ngir teqali dëgg ak neen mu wàcce ko ci jaamam bii di yonent bi sallallahu alayhi wa li yakuna rasulan ila saqalayni al insu wal fan muqayifan lahum muqayifan lahum min asaabillahi su ko defee suñu borom yónni ko ci ñaari way ndi ji bopp yi muy nit ak jinne mu di leen ragalloo mbugulum yàlla kon gis nga ko alfurqaan mooy alfur alquran alfaariqa bayna alxaqi wal baatili kon loolu moo tax nag ñi tuddee ko jëmmi furqaan moom al waaye alquran rek dañ koy wax furqaan ndax ci turam yi la bokk saar wi lu tax ñu tuddee ko rek baata furqaan mooy loo xam ne dafa ñëw teqale dëgg ak neen booy xool sax loolu lay jàngale dëgg ak neen rek lay waxtaanee ci biir saar wi saar wi yëpp boo ko xoolee rek ba mu jeex tàkk li ci ëpp rek loolu lay waxtaanee diggante dëgg ak neen bañ man koo xàmmee. moo tax nag sëriñ bi ne yow sun borom kat maa ngi lay ñaan nga may ma sa njéggal may ma sa ngërëm waaye may ma sa xam-xam may ma jëfee xam-xam bi ci barke Furqaan ndax am na ñu yàlla di nettali ci saar wi yàlla jéggaloon na leen. am nañu yàlla di nettali ci saar yi am nañ gërëmal yàlla waaye itam am nañu yàlla nettali saar yi amoon nañ xam-xam mais jëfewuñ ko yàlla wàcc mbugal seen kaw yàlla tëkku leen ci moo ta sëñ bi yàlla may ma sa njëgal may ma sa ngërëm may ma xam-xam may ma jëfee xam-xam ba ci barkeb suratu Furqaan xab na nga may lii ñal ma widaadal awliya cofeeluk awliya wal umura ak buur yi wa jumlatil xalqi ak mboolem bindeef yi bi àqi suara yi ci barkeb suratu suara yàlla dama bëgg nga may ma awliya yëpp bëgg ma sopp ma kilifa yëpp muy buur yi buur yi adduna yi sopp ma waaye mboolem mbindeef yëpp maa ngi lay ñaan nga nga may ma ñu sopp ma ci barkeb saar yi nga xam ne moo di suratu Suara moom lu tax mu tudd suratu Suara yi parce que baat bi dafa rot ci biir jàng ci biir saar yi alxuraan di wax ci biir saar yi muy deux cent vingt quatre deux cent vingt quatrième laaye sun borom ne wa suxaraau yatbauhumul xaawuuna alam tara annahum fi kulli waadin yaxiimuuna wa annahum yaquluuna maa laa yafaluuna illa allazina aamanu wa amiluu saalihaati wa sakaruu laaha kasiiran wantasaruu min baxdi maa sullimoo wa sa yaxlamu allazina sallamoo ayya munqalabin yanqalibuun sun borom ne soxaraa yi mu ne dañoo wax ne yonent bi salaay salaam ci ñoom la bokk maanaam wéykat la dañoo saxal ne bi wéykat la te yonent moom ku ne ko wéykat nga kon da ngaa bëgg wax na rek alquran yonent bee ko wéy ngir mën a wéyam te yonent bi yàlla wax na ko ci beneen aaya wa maa allamnaahu shahra wa maa yanbaghi lahu xamalu ma la wéy lu ma la xamal moom woy bokkul ci te itam yellul sax nga di ko def nag ndax yonent su mënoon a wéy rawatina mu nekk bindkat ñu ne ko yaakaar yi alquran te muy dëgg wa yawma kunta tatloo min qabli min kitaabin wala taqru bi yaminika moo tax so bindee du mën a liir te moom mëntu bind ba tey waaye ëpp ñëpp xam ko kooku mooy ummi yu moo tax sunu borom ne wa su'araa yattabi'uhumul ghaawuuna woykat yi ñoom dañoo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñoom la bokk ndax ñoom dañoo jéng wëlis yoonu njub dégg nga su ko defee nag mu ne ko yow yonent bi kanaa gisoo maanaam xur wu ne rek ña ngi fay dem di taggante ak di ŋàññiwante parce que jamono jooju seen jamono arab yi lu ñëw point muy wëy dafa doxoon lool rawatina tagg kii ŋàññi kii wala nit na la ñëw na la taggal ma kii ma jox la xaalis bu dul jeex wala xasal ma kii ma jox la nangam yooyu yëpp ñoom dañ daan xasante rek ñoom wëy noonu lañ ko jàppoon fii kulli waadin yem doona fil mar'i taaratan wa fii sammi taaratan wa fii xayrihimaa taara taaratan nga xam ne dañ daan wëyante rek di xasante ak taggante seen fànn yooyu yëpp boo koy xool al baatili wal kasi bi la dégg nga fannun min funoonil baatili wal kasi bi waxtu nañ naan xuusante rek di di daggante seeni der di xasante wa annahum yaquluuna maa laa yaf'aluun te seen wëy dañuy wax luñ du def kon gisu ko dañuy wax loo xamee ne duñ ko def yàlla nag ne ilal lasiina amanu wa amilu salaat lu dul ñi nga xam ne dañoo gëm ci wëykat yi ñooñu moom la ñuy wax danañ ko def waaye ñi nga xam moom nekkuñ ñu gëm ci waykat yi ñoom la wax dafay wuuteeg seen jëf moo tax suñu borom ne ilal la si ne am na misaal lu dul ñi nga xam ne dañoo gëm ci waykat yi tey jëf-jëf ju baax te boole ci nag di tudd seen borom lu bari gis nga ko boole ci di tudd seen borom lu bari wan tasoro min bax di ma sulima te bu leen tooñee ñi fexe nag ba fayu misaal ci ku mel ni Xasan ibnu Saabit nga xam ne bu ñu ŋaññaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom lay woo dégg nga su ko defee nag mu delloo tontu ña tooñ yonent bi te itam du ca boole yonent bi du wax wax ju ñaaw ku ma noonu tàgg la moom la mooy ki nga xam ne jibril daan na ñëw di ko dëgëral lépp lu mu daan wax rek ci ay tàgg rek jibril moo ko koy yenkiwal xasaan ibnu di radiyallaahu anhu kon soo araawu mooy wëykat dafa amoon ñoo xam ne jamono jaahili gëmuñu woon yàlla lañ daan wax ay fen a kàcc dong la di askan lu yonent bi ci ñoom la bokk ndax wëykat la te ñoom kat dañoo jàdd yoonu yonent bi suñ borom xamulut ko wéy te yellut mu di ko def yàlla ne ñu ci ëpp ci ñoom dañuy xasante di taggante yooyu yëpp ŋàññiwante rek loolu lañ defoon wéy lu rut nag ñi gëm yàlla tey jëf-jëf ci baax ci wéykat yi ñu moom da la ñuy wax dana dëppoog seen jëf loolu nag gis nga ku mel ni sëñ Tuubaa ci point yi la bokk lépp lu mu wax jëf na ko lépp lu mu jëf wax na ko kon kooku lépp mat na moo tax mu ne nag ma may nag awliya u sopp ma ak umara u parce que lu waral sëñ bi ñaanee ko ni mooy mun naa sa bopp ma la waxoon ndax am na koo xam ne soo ko xasalee nit mu bëgg la ba faw am na koo xam ne soo ko taggalee nit mu bëgg la ba faw sëñ bi nag ñaan yàlla na ko dama bëgg nag aada jooji nga xam ne moom la fa arab yi nekkee woon taggal ma nit ma bëgg la faw dila la teral faw xasal ma nit ma ma ma bëgg la faw di la teral faw dama bëgg nag aada jooji nga musal ma ci nañ koy defee dafay wuuteeg ni ko lislaam bëggee damaa bëgg nag man awliya yi bëggal ma seen bopp te yàlla rek tax ila lisina am amlu salaat kon moom lay junj ca la bokk ci waykat yooyu nga xam ne dañoo gëm yàlla di jëf-jëf ju baax mu ne damaa bëgg nga may ma awliya sopp ma waaye buur yi ëtt nii sopp ma am na buur yoo xam ne balaa ñi lay bëgg faaw nga tagg leen ba tey ci jamono arab amoon na am na mbindeef yoo xam ne balaa balaa balaa ñi lay bëgg faaw nga tagg leen wala faaw nga ŋàññal leen seeni noonu noonu la amee ba tey ci awliya yi mu ne yàlla man awliya yëpp nañ ma sopp te bu leen tagg buur yëpp nañ ma sopp te bu leen tagg mbindeef yëpp nañ ma sopp te bu ma leen tagg xaab na nga may liy ñeel ma wi daadal awliya cofeelu awliya yi wal umara ak buur yi adduna yëpp wa jumlatil xalq ak mboolem mbindeef yëpp beeqi sonra ci barke suur sonra mooy saari woykat yi waskur yàlla na nga sant tawsul yi sama tawsul ci saar yi wasaki yàlla na nga sellal fexli sama jëf wam hu yàlla na nga far maha ibi sama ayib yëpp bi xaqi nam li ci barkeb suuratu nam li yàlla dama bëgg taw tawsul gii may taw tawsul naan la may ma ci barkeb saari may ma ci barkeb saar loolu mooy tawsul nga xam ne dafay ñaan yàlla waaye danaan ko ci barkeb saaru nangam loolu mooy tawsul moo tax ma ne na gërëm na sant samay tawsul yi waaye sama jëf yëpp na sell na yàlla rek tax waaye ayib nekk ci man yëpp sikki yëpp wiis yëpp yàlla far ko yëpp mu seet wicc ci man ci barkeb saar yi nga xam ne mooy sóoratu nam li moom it tuddee nañ ko sóoratu nam li ngir baat bi rot na ñaari yoon ci biir saar yi jàng def naa ne booy xool aaya ji nga xam ne mooy fukkeel ak juróom-ñett xata isa ataw ala waadi namli qaalat namlatun yaa ayuha namlu udxulu masakinakum laa yaxtimanakum suleymaanu wa junoodoo wahum laa yasoroona a namlu mooy xorondong yi ngeen di gis kon gis nga yàlla bàyyu dara te itam dara xeebut fa mom ñun rek ñooy xeeb dara waaye dara xeebut fa yàlla lépp ay mbindeef yàlla lañ suleymaan moom la yàlla di nettali mu ngi tàmbalee wa xusira li Suleymaana xëy na booba doroon tukki bëgg a wajaasu dem fenn Suleymaan dal di dajale ay soldaaram ci ay mbindeef ak jinne ay njanaaw yépp màng leen noso leen ñi nekk benn kuréel moom nga jàng ba ne wa xusira li Suleymaana junuuduhu minal jinni wal insi wa tayri fahum yuusuuna daf leen gibb ñoom ñëpp yuusuuna mooy yuradu awalu kullu jinsin ala aqrim li yaqifu jamian muntasimina bu bëggaan a tukki nit ak jinne yëpp yam njanaaw yeeg ñëpp dañuy daje nekk benn su ko defee nag ba muy tukki nag euh, bëgg a traversé ab xur fekk booba ay xorondog ñu ngi ci biir moom nga jàng alquran xataa isaataw ala waadi namli ba mu ñëwee nag ci wajaasam bopp ba yegg si ci xur yi nga xam ne ci la xorondog wi nekk am xorondog wu jigéen xaalat namlatun benn xorondog wu jigéen ne yaa ayyuhan namlu ay yéen xorondog yi nekk ci biir xur yi ah udxuloo masaakinakum daw leen ngeen dugg ci seen biir dëkkuwaay yi ndax laa yaxtimanakum Suleymaanu Suleymaan moo soldaaram yi kan ñi ngi ñëw ndax ku amoon doole la bu daan tukki. xorondak bi gis nga moo wax ne yéen daw leen ngeen dugg seen biir kër yi ndax damay bañ Suleymaan ñëw dëggate leen alag leen ngeen alaku te fekk du ngeen ko yëg. nee nañu Souleymane boobu distance bi kenn xamul rek nu mu sëree Souleymane dégg waxi xorondog bi muuñ seetal mbiram yàlla rek koo xam ne yow masalan soo ko doon misaal Souleymane mi ngi fii ci Kaolack war a dem Dakar départ gut xorondak wi ci boppam xam na ne Souleymane a ngi war a bàyyeekoo Kaolack ñëw Dakar mu dal di koy wax Souleymane moom it yàlla may na ko moom mi ngi Kaolack di digg waxi xorondak wi moom yàlla da koo mayoon picc yeeg janaaw yi yëpp bu ñu waxee mu xam lu ñuy wax. kon moo tax nag ñi tuddee suratu namli saar yi mooy xorondak wu jigéen yi nga xam ne mooy waxoon yeneen moromi xorondak yi te fekk ñu ngi ci biir xur ah, mu ne leen yéen tey ngeen di làqatu bi biir dëkkuwaay Souleymane kat mi ngi ñëw ndax damay bañ bu ñëwee dëggatu leen moog soldaar bi te du ngeen ko yëg. dégg nga wax nañ ne waa di nam li foofu mooy mawdi xobi saam ab barab la ci saam. xuru xor xururoon xorondak wi di wax loolu nee nañ ci saam la ne mawdi xobi saam ab barab la ci saam su ko defee xaalat namlatun nam namli yaa ayyuha namlu udxuluu masaakinakum xataa laa yuxlikakum Souleymane wa junoodu te fekkuhum laa yaxlamuuna bikum isaa law alima bikum dégg nga kon moo tax nag ñi tuddee saar wi an guy firi xorondong defe naa ne moom miin ngeen ko xam ngeen ko rawatina ñi jàng wàllu asara xel mu asara waxtu ne dañuy soxla mbiram xorondong ak lu ci aju wala xeeti càngat yi yu bari faaw xorondong mënu ca ñàkk bokk. kon sëriñ bi ne waskur yàlla na nga sant tawsuli sama tawsul wasaki yàlla na nga sellal fi ali samay jëf sama jëf na ci yàlla rek nekk jëf bu ci yàlla dong nekkee mu sell su sa leneen nekkee nag man naa bañ sell wam xu yàlla na nga far ma ibi sama ayib yëpp bi xaqi nam li ci barkeb saar wi nga xamee ne moom la ñu wax sóoratu nam li ndax saar yi ba tey mun naa saba gi sëñ bi def ba tey ku mel ni Souleymane jàng ci biir saar yi sunu borom ne wala xada atina daawuda wa Souleymane xelman joxoon nañ daawuda ak doomam ji di Souleymane xam-xam bokk na ci xam-xam ba mooy xel mu kalaamu tayri muy lépp lu njënaaw yi di wax picc yeeg yëpp yi caaju ñi mën koo xam. wa qaala alhamdulillahi allati fadalna ala kasirin min ibadil mu'minin ñoom ñaar ñoom ñu bokk sant yàlla mi leen gënal ci kaw lu bari ci ay jaamam ñi nga xam ne dañoo gëm kon ñoom ñaar la ñoo xamee ne yàlla may na ñu nekk koo xamee ne dañ doon jëfee seen xam-xam waaye itam xam-xam ba leen yàlla joxoon dañ koy jëfe waaye ba noppi nag gi ci sant seen borom ci jox gi leen yàlla jox xam-xam moo tax munaasoo boobu nag moo tax nga dégg bi wax ba moom it ci ñaan gi ne wasakki fi'li ndax ñoom seen jëf dafa selloon waaye wam hu maha ibi yàlla ñoom daf leen faraloon seen ayib bi suratul qasas yi yàlla maa ngi ci barkeb suratul qasas xab na nga may lii ñel ma qahra ak not jumlata ahda yi mboolem samay noon waxabta yàlla na nga may lii ñel ma nasra ak ndimbal yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb suratul kasas nanga ma may sama noon daal ñoom ñëpp ma not leen ñoom ñëpp ma geñe leen waaye nag waxtu wu ne yow sunu borom nag may nekkal di ma dimbale fu ma gëstoo rek naa la gis yow sunu borom subhaanahu wa taala di ma dimbale ak fu ma mën a nekk rek. alxasas mooy firi loo xam ne dañ la koy jàngatal ngir nga mën koo xam te fekkee woo ko woon xisa yi sunu borom di nettali yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moo tudd xasas ndax bëri na yonent yi mu ko nettalil ci biir alquran waaye nee na ko am na ñoo xamee nag. wa minhum lam naqsusum alayka am na yoo xam ne nettaluuma la ko te ay yonent yu fi jaaroon la kon nekk na yonent yi ngay jàng ci alquran lu mel ne ñaar fukki ak juróom yi rek sunu borom am yim ci nettali yonent bi sallallahu alayhi euh, waxal ko seen xissa te yonent yi fekkewut ko kon xasas baat la boo xam ne dafa rot ci biit dafa saar wi ñëw na ci saar wu mel ni yuusufa sun borom noonu mu jàngale xisitu Yuusuf ci benn saar ci anam bu rafet ahsanal xasas loolu mooy xasas waaye fii ci suratul xasas dafa am kasas goo xam ne dafa ñëw ci biir saar wi te mooy fa jaatu ixdaaxuma tamsi ala istihyain qaalat inna abi yadxuuka li yajziyaka ajra ma saxayta lana falama jaahu wa qasa alayhi alqasasa qaala laa taxaf najawta min alqawmi saalimina li tax sëñ bi ñaan lii munaasaba bi rek moomu ci yitteel ci Muusa ak Firawna ku ne xam ne ne Firawna doon na jóg doon niiwal dooli Muusa waaye niiwal dooli julit ñi waaye fa mujj kako ko alak mooy Muusa kon loolu xabli qahra ñëw na jumlati axdaa yi sunu borom muusal na yonent yàlla Muusa ci noonam yi te mooy Firawna xettali na ko musal ko kon loolu sëñ bi bu ñëwee ci sóoratu xasas te sóoratu xasas li muy jàngale lépp xasatu ak Muusa moo cëpp li ko tàmbalee ci juddu nettali na ca ba keroog sax yàlla di ko yónni muy mu nekk kër Firawna ba rey fa nit ba ko fa dem Madyana di sàmmal yu nit yàlla saa bi diiru fukki at yooyu yëpp saar yi dana ko nettali waaye baatul xasas mi ngi rotee ci ñaar fukkeelu ay ak juróom ci biir saar yi wa qassa alayhi al-qasasa qaala laa taxaf najjata min al-qawmi saalmina mooy bi Moussa demee ci Madyana dégg nga fekk fa Suaybu te doomam ju jigéen ji la yónnoon moom Suaybu ngir ngir mu wo Moussa mu ñëw wuy si ko moom saay bu li yesseeka ajrama saxayta ngir mu fay Moussa payoorog lim nandalal ay doom yu jigéen yoroon fi wëgg ca teen ba. bi Moussa doxee ba ñëw nag saay bu laaj ko ana lan moo la tax a bay ko fa nga bay ko ca ñooñ na falamaa jaahu ba mu dikkalee saay bu moom Moussa waxasaan li mu nettali ko alxasasa jàngatal ko lu problème yëpp deme saay bu ne ko xaala laa taxaf najawta minal qawmi saalimiin yow kat yegg si nga fi nga war a yegg si na nga wax ne mucc nga ci nga xam ne ay tooñkat lañ nga ci ñi nga xam ne ay tooñkat lañ kon xasas daal mooy loo xam ne dañ lay jàngatal mbir moo xam ne fekkee ko te lépp nii rek la amee te keneen su lu ko bëggoon a nettali te fekkewut ko man na ko bañ xam yàlla nag moom mooy ki fekkee lépp mooy ki xam lu faddu xam lu teew xam lu ñëw moo ko nettalil yonent bi sallallahu alayhi kon sëriñ bi su ñëwaatee ñaan yàlla na ko nag ma may ci barkeb xasas te xasas li muy nettali mooy xasatu Moussa ak Firawna seen jaar-jaar ba nag Moussa suñ borom xalagal ko noonam bii di Firawna ba mujj not ko te sonnal gu ne rek sonal na ko Moussa moom Firawna suñ borom nag musal ko ci xayam wa kon sëñ bi bu ñëwaatee ñaan lii li ma bëgg wax mooy day def munasaba nga xam ne kon ñu ngi doon déglu mu ñaan geneen ñaan waaye su ñaanee lii dañoo xam ne kon loolu mooy munasaba mooy dafa dëppoog li mu bëgg moo tax ma ne bi suratul qasas maa lay ñaan ci nga may lii ñeel ma qaxara ak not jublat ahdaay mboolem samay noon waxaab yàlla na nga may lii ñeel ma ak ndimbal yàlla dimbale ne Moussa waaye notal na ko noonam yëpp rawatina noon bi gën a bon mooy mooy na wajal yàlla nga def lisaani sama làmmiñ wa fuaadi ak sama xol fii sukkoot mu sax ci mu nekk ci ak noppi anil fu doli walis lépp luy waxi bebbantu muy waxi caaxaan xa ak neen bil ankabut ci barkeb surtu ankabut yàlla dama bëgg sama làmmiñ wi ak sama xol bii lépp luñ naan leen neen la wala wax bu dee lu ñuy wax la sama làmmañ bu ko wax bu dee lu ñuy fas ci xol la sama xol bu ko fas wajal lisaani anil fudooli wa fuaadi wa laqa ndax léeg-léeg baraana làmmañ yoo xam ne suñ xëyee ba ngoon loo xam ne amul benn tiyaaba bàkkaar rek la leen di jural ci la ñuy nekk di wax te mënoon nañ ko noppi baa ñi di ci wax lu baax am na xol yoo xam ne neen rek moo ca nekk dara nekkul ca dara dara nekkul ca dëgg mënu faa taxaw leer mënu faa taxaw neen rek fa nekk moom la ñuy fas waxtu ne te mënoon na ne fas ci seen xol ya mooy yéene nit ñëpp jàmm yéene lu baax xol bu noppi mooy xol boo xam ne du fas boroom xol boo xam ne du fas ca xolom neen du ca fas dara lu bon waaye ñu nit mooy làmmiñ ñoo xam ne lu baax rek lay wax su jeexee mu noppi moo tax sëriñ bi ne wàcc xal yàlla na nga def lisaani sama làmmiñ ul fu aadi ak sama xol fii sukkoot mu nekk ci ak noppi àndil fu dooli wali si lépp luy waxi bebbantu wala xaa ak neen biraan ko ci barke soo tuwaan ko xam nga buñ ne jubluñ ci koo xam ne dafay noppi ngir bañ a wax ak nit ñi waaye noppi gi ñu ngi ci namm rek mooy xol boo xam ne ak làmm ñoo xam ne daal lu baax rek bu xol bi lu baax lay fas làmm ñu lu baax lay wax waaye lépp loo xam ne mën na cee bañ a am bàkkaar sax dégg nga loolu laxu da koy wan gannaaw ndax am na loo xam ne nit ki mi ngi koy wax te du ci am bàkkaar mais nag amul ko benn njëriñ loolu nag moom la ñu wax fuddool mooy waxi bébbantu loo xam ne tey tabaarakallahu soo ko waxoon nii mën ngaa bañ a am waaye nag wax gi moom dalaa jurlu benn njëriñ benn tiyaaba léegi nag imaasal na yow tey nga téye sa kurus di julli ci nit maa ngay tudd yàlla yaa ngi am payoru kuy tudd yàlla la ngay def kon am na tiyaaba mais soo gëroon gërët gi wax waxi neen mën ngaa bañ a am bakkaar mën bañ am tiyaaba waaye nag lee moom boo koy def doo am bakkaar te yaa ngi ci am tiyaaba tuddee nañ ko sóoratul Ankabut ngir baat bi root na ci biit ñaari yoon jàng nga borom bi subhanahu bi muy misaal mbirum jorgoñ dane masalu la siina taxasu min doonillahi awliya ka masalin ankabut baat bi ñëw na itaxasat baytan wa aw inna bu buyuuti la baytul ankabut baat bi ñëwaat na law kaanu yaxlamoon bi muy ñi nga xam ne ay musrikiina lañ di max naa dañuy jaamu lu dul yàlla te mooy ay xërëm yaakaar ne xerem yooyu mën na leen di jëriñ wala mu ràmmu leen da ci melokaanu jorgoñ xam ngeen ne néegab jorgoñ yàlla nee na moo gën a doxadi ci xeeti néeg yëpp jorgoñ boo demoon ci doj yi ba gis jorgoñ yi seen ak lënd yi xam ngeen ne bu tawee ndox dugg ca bu naaj wi tàngee ba tey ñi yëg tàngoor kon xeeti néeg yëpp néeg bi ci gën a doxadi nga xam ne mënul laa fegal tàngoor ah mooy néegub jorgoñ yàlla nag nee na ñii jaamu lu dul yàlla noonu la mel dañoo mel ni néegab jorgoñ maanaam ni néegab jorgoñ doxadee la ko bëgg a misaale rek néegab jorgoñ xam nga dafa def lu ñuy wax aw xana mooy addaxa fa waaye ba tey ñiy jaamu lu du yàlla jàpp ne ñu dañ leen jëriñ mbaa ñu ràmmu leen noonu rek la mel. moo tax sunu borom ne misaalu ñi nga xam ne dañuy jaamu lu bokkut ak yàlla lu bokkut ak yàlla jël ko di ko jaamu def ko ay xarit nee na dafa mel ni misaalum jorgañ. jorgañ moo xam ne dafa defar néegam ba mu baax defe nag bu tawee ndox du ci dugg naajee naaj bi fi tàng la naaj wi ci la dàq rañaan dugg ca yàlla ne wa inna aw xanal buyutu li gën a doxadi ci néeg yi la baytal ankabatu muy néegub jorgañ xam nga ñun suñu néeg yi mën na laa fegal tàngoor mën na laa fegal nangam waaye néegub jorgañ moom mën na la koo fegal kon day misaal rek ñiy jaamu ay xërëm jàpp ne xërëm yooyu mën na leen di ràmm wala mën na leen di jëriñ wala mën na leen di fegal lor yàlla ne wallahi bu ñu xamoon la ñuy jaamu num doxadee wallahi lasim doxadi gi bi mu koy misaal mu ngi mel ni néegub jorgañ ñi mu doxadee rek ñoom ku dul yàlla jàpp ne mën na leen di jëriñ wala mu ramu leen ah noonu ñoo gën a doxali sax nii ko jorgañ man nga jorgañ yàlla da bind bind goo xam ne rab la woo xam ne soxlul ku ko dimbale ak nig bu muy dëkk lu muy tàng-tàng ak lu ca taw du dugg soxlul kenn ku ko dimbale def na cell rab woo xam ne du sonnal beneen moroom rabam du sonnal nit gis ko moo tax sëñ ba tey mun naa saba boobu nag mu ne yàlla defal sama làmmañ ak sama xol lépp luy waxi caaxaan ak neen su ko defee nag tabaarakallahu mu noppi ca bi la Ankabut ci barkeb sootu Ankabut waaye bi sootu Room ci barkeb sootu Room ijaali na def an nasaara tubaab yi fa man bi tasxiri ci ca tàggatal kal usara bañ mel ni ay prisonnier ci man yàlla ma ci barkeb suuratu Room nasaraan yëpp nag ma leen defal ànd gi ma ànd ak ñoom nekk ci tukki bi tàggatal ma leen bañ nooy nepp bañ mokk di toroxlu sama ron mel ni mel ni ñoo xam ne dañ leen jàpp ci dama leen jàpp yeew leen sama pegg. te loolu ku ne xam ne ne suñu borom defal na ko sëriñ bi. ndax waxoon na leen ci asiru ne. antum huyara waaye usaara li sayatini wal hawa nee na leen yéen kat ñu gëlëm ngeen waaye yéen a ngi defee ne yéen ma jàpp fekk yéen seytaane moo leen jàpp ak seen bànneex su fekkee am naa man kenn ku ma jàpp wala kenn ku may dox jëm mooy yàlla mais dox ma jëm ci yéen de wa inni li rabbil arsi jalla asiru kon gis nga ko sëñ bi ne xam ne ne suñu borom defal na ko lii ndax Cheikh Mamadou Lamine Diop daga naan rek bëri na xis yu ci nettali ci Irwaa Nadim nasaraan sépp dañoo mujj ci géej gi dañoo mel ni ay bëkkanik ay surga yu koy liggéeyal topp sëriñ bi xam nga ne ñooñu wuutee nag ñi jël si woon sëriñ bi di yóbbu ci géej ga ñii nag ñoo mujj nag di sukkal sëriñ bi kon mel na ni sëriñ bi moo leen mujj jàpp te ñoom ñi ngi defoon ñoo jàppoon sëriñ bi te sëriñ bi nee ñoom jàppuñ ma kat asiru maal abraari yi na asiru wasannal ida ani hunaka asiru maa ngi dox ànd ak gaay yàlla yi gaay yu baax yi ahlu badar ak yonent bi jiiti fi may dox ñi defee ne ñoom ñoo ma jàpp fu leen neex yóbbu ma déedéet te fekk ñoom jàppuñ ma de jàpp koy buy am maa leen jàpp ah, kenn du sëñ Tuubaa moo tax nag mu ne maa ngi la ñaan ci barkeb sóoratu Room sóoratu Room tubaab yi ma jël si génn ma Sénégal génn ma sama réew su ko defee nag yóbbu ma ci tukki bi na nga ma leen bañ mel ne ay usaara ñoo xam ne man maa leen mujj jàpp moo tax bi sóoratu Room maa ngi la ñaan ci barkeb sóoratu Room ijaali na nga def a nasaara nasaraan yëpp xendee fi man bi tasqiri ci ci sa tàggatal kal usaara ba mel ni maanaam dama leen jàpp ñoom ñoom ay prisonniers ñoo xam ne man maa leen jàpp tëj leen room baat la boo xam ne sunu borom da koo tudd ci njëlbeenu saar wi moom nga ne bim ne alif lam mim rek lam ca teg dana xulibatu room fii adnal ardi wa hum min baxdi xalabihim sa yaxlibuun fii bidix siniin lillahi al amru min qablu min baxdu wa yawma isin yafrahu al bi nasrillahi yansuru man yasaau wal asisu rahim kon yàlla ci njëlbeenu saar rek la indi baatab ruum ar ruum yàlla dafay wax ne xullibatu ruum mooy asamat farisu ruum waa faris dañee dajoo nag waa ruum bam ko defee nag faris dal di leen not maanaam gaa yi ànd ak yonent bi ak nasaraan yi dañoo daje woon nasaraan yi not ñi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fii adnal ardi wa hum min ba'di qalibim sayaxlibuna ñi ngi ko doon defee liwatoo boobu fi gën a jege suuf si saam si nga xam ne suuf si saam la gën a jege faris gannaaw ba nga xamee ne nag faris not na ñi jàmmaarlu ñi jàmmaarlu Rome ñoom waa faris ñoom faris njëkk a not Rome waaye ñoom it nag mujj nañ leen notaat maanaam Rome mujj nañ not waa faris muy ñi ànd ak yonent bi sallallahu mujj nañ dégg nga not ñi nga xamee ne mooy ñi nga xam ne mooy nasaraan yi. moo nga dégg fi mu ne fii adnal ardi wa hum min ba'di qalbihim saghlibuun fii bid'i sinina lillahi al ndax biñ leen notee bi nga xamee ne faar yi xeex ak Room ba not leen daf leen meti lool mooy gaa yi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi di ko métti ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne dem leen fii ak juróom wala fi ak fukki at da ngeen dajeeg ñoom te su ngeen dajeeg ñoom ñu ne leen di gañe loolu mooy fii bid'i sinina lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma bi nasrillahi yansuru man yasha waaye nag ci gàttal daal Rome ci boppam mujj nañ not ñi nga xam ne mooy waa Faris moo tax alquran ne wa yawma isin yafrahul mu'minuna kooku mi ngi ci namm Rome not gi ñu war a notaat waa Faris te loolu ndimbalug yàlla ndor gi ñu war a not waa ahlul kitab loolu ndimbal la goo xam ne dafay ci yàlla mu di ko defal jaamam bu ko neex waaye munaasaba boobu ma di ci bëgg wax rek li tax sëñ bi indi fi baatam nasaraan parce que xam nga waa Faris ahlul kitaab lañ waa Room yi nag mooy jullit ñi nga xam ne dañoo gëm yonent bi ta Abubakar moo leen jiitoon kon gis ko kon sëñ bu ñëwee waat fii na yàlla ma leen ci barke Room na nga def tubaab yi yi nekk ci man na nga ma leen tàggatal bañ mel ni maa leen jàpp te xoolal Faris ñoo njëkkoon not Room xeex bu métti nasaraan yi ahlul kitaab not jullit ñi antoon ak yonent bi sallallahu alayhi kon not googu am na waaye nag dañoo dellu xeexaat bañ xeexaatee Rome muy jullit ñi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam am victoire bu rëy ci kon sëriñ bi su fekkee dafay ñan yàlla mu tàggatal ko nasaraan bañ mel ni ay prisonnier xam nga nit koo jàpp moom mooy koo man rek koo xare ba ba man ko ba génne ko moo tax sëriñ bi ne ijaan na nga def a nasara tubaab yi indien fi man bi taskari ci tàggatal ma leen kal usara ba ñu mel ni ay prisonnier ndax koo jàpp moom mooy man nga ko téye nga ko. beeqi luqmaan maa la ñaan ci barkeb suuratu luqmaan ijaan la na nga def fu aadi sama xol wi ha ay hikmatin muy ndabal xam-xamu hikma wasitta yàlla na nga dolli rasaar yi sama njub yàlla maa ngi la ñaan ci barkeb suratu luqmaan sama xol bii nanga ko def hikma ci boppam xol bi nekk ndab lu ko denc xolob sëñ tubaa hikma bu doon am ndab lu ko denc mooy xolob sëñ tubaa moo tax ne maa ngi la ñaan ci barkeb suratu luqmaan na def sama xol bi muy ndabul xam-xamu hikma waaye njub gu nekk ci man waxtu ne nay gën di dollee ko ci waxtu ne Luqmaan kenn loon ci nit ñu baax ni waaye nekkutoon ab yonentu ku yàlla joxoon alfiqhu fi diini wal isaabatu fil umuri maanaam ko déggoon diina la waaye yàlla may ko xikma lool baat bi rot na ci biit saaru ñaari yoon wa is qaala luqmaanu libnihi ba muy dénk doomam ja ak wala qad aatinaa luqmaana al xikma ñaari la baat bi ñëw ci téere di alquran waaye rawatina ci saar wi nga xam ne mu la tuddee luqumaan suñ borom nee ñoo joxoon luqumaan mu nekkoon ku dégg diina xam mbir yi waaye bañ ko ko dañ ko waxoon na ko dañ ko wax na ko yow luqumaan nag ñi sant ci xéewal guñ la defal ci tawféexal giñ la tawféexal ba nga man ñee topp ndax man yàlla képp ku ma sant njëriñu sant ga dafay dellu ci boppam ndax man ku doylu laa wëlis koo xam ne sant na ma soxlu ma ci moom dara ku weddi xéwal gu ma ko defal ba tey yow Luqmaan na nga xamee ne ba tey lor gi ci moom rek lay dellu waaye yàlla moom kenn mënu koo lor dara mënu koo lor ndax ku doylu la walis ay mbindeefam te ku ñu sant la ci bépp mbir. al hikma mooy al fiqa fii diini wal isaabata fil qawli koo xam ne su waxee rek lépp njëriñ lay doon loolu mooy hikma waaye itam dafa dégg diina dégg diina gi keemaan la woon moom Luqmaan kon loolu nag mu bokkoon ci kenn ci nit yàlla yi waaye nekk nekkutoon yónantu am na ñuy wax ne yónantu la. waaye déedéet am na ne sax nit ku ñuul la kon nit ku ñuul sunu borom yàgg na koo may te sunu borom day nettali ci alquran ne képp ku ma jox xikma jox naa la yiw wu bari yootal xikma te man yasaa uman yootal xikma faqad utiya xayran kasiran faqad utiya xayran kasiran moom ku mënoon dénkaane la ku mënoon dink ay doom te wax yoo xam ne xikma njëriñ képp lay doon xikma mooy loo xam ne ku ko dégg xam na lii njëriñ la dégg xam nga buy soo ko tojee da nga xam lu nekk ci biir ne buy la neex naa màcc neex na hikma nag mooy loolu mooy wax joo xam ne su génnee rek ñëpp xam ne lii njëriñ la ñëpp ci dëppoo lii njëriñ la xam-xam boobu nag la ko yàlla mayoon waaye ba ko yàlla mayoon na ko na sant yàlla mi la ko jox ndax soo santee yàlla day dollee ko payor gi day dellu ci yow soo weddee yàlla bañ koo sant na xam ne mënoo jëriñ yàlla dara mënoo lor yàlla dara kon gisu ko moo tax nag ba tey munaasa boobu ma la doon wax gis nga ko luqman la yàlla joxoon xam-xam hikma sëriñ bi dellu ñaanaat yàlla defal sama xol muy ndabal xam-xamu hikma te luqman kenn ëppul ko hikma sëriñ bi ne bàq luqman maa ngi lay ñaan ci barkeb luqman ijaalan defal fu aadi sama xol wiha ay hikmatin muy ndabal xam-xamu hikma te yàlla na nga dolli rasaadi sama njub maa ngi lay ñaan ci barkeb surtout luqman kenn la xakim la ku bokkul ci nit yàlla yi mu ne na def sama xol muy ndabul hikma muy xam-xamu hikma al hikma waaye mooy koo xamee ne dafay xam mbir yi te wax jëpp wax ju wax rek njëriñ lay doon sëñ Tuba ñaati xikma la dénkaane la la la defaloon mag ñi xikma moom defe naa ni sëñ Tuba la yem Luqmaan nekkoon ci xikma dégg nga maanaam xikma ja nekkoon ci Luqmaan sunu borom del defalaat na ko borom Tuba da ngay jàng ci xasida yu bëri sax muy ñaan yàlla nag ma def fasaa gi nekkoon ci Luqmaan wala xikma bi nekkoon ci nag ma ko may fii moom dafa tawsul ci barkeb saar rek te mu jublu ci rek mooy nit ki nga xam ne mooy mooy Luqmaan mu ne yàlla ijaalan defal fu aadi sama xol wiha wiha hikmatin muy ndabul xam-xamu hikma waaye wasit yàlla na nga dool yow yàlla rasaadi sama njub wëltaq yàlla na nga fegal xalbiya sama xol aduja muy kukuk lëndëm wa shiddati ak tartarya wasaa ilay ne ak ñaari way laaj na muy malaaka ye laaj ci bàmmeel te muy munkar ak nakiir wa asan ak lépp luy lor bi sajara ci barkeb suurtu sajara yàlla maa ngi leen ci barkeb suurtu sajara sama xol na nga ko fegal lépp luy lëndëm ak tartar waaye itam nang ma fegal ba bu ma tiit buñ ma dugalee ci bàmmeel bi mooy ñaari malaaka yi may laaj fegal ma buñ ma dugalee ci bàmmeel bi lépp luy lor ci barkeb suuratu sajara lépp nag ma ko fegal ci barkeb suuratu sajara sooratul sajara saar la woo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moog sooratul mulki amul benn bis boo xam ne dana nelaw lurut bala moo nelaw jàng na leen ci saa sa dogo nelaw yonent bi sallallahu alayhi sooratul mulki ak sajara la qabla nawmi mubasharatan kaana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam laa yanaamu la an yaqulu suuratu sajara wa suuratul mulki suuratu sajara képp ku koy jàng sunu borom dala musal ci malaaka yi laaj ci biir mu suuratul mulki yonent bi wax na ci njëriñ yu bari bari sunu borom dala musal ci lëndëmug bàmmeel ak xeeti tartar yépp képp kuy jàng suuratul sajara rawatina nag bépp guddi sunu borom dala ci musal dégg nga moom saar la woo xamee ne wu bari bëri dafa jëm rek di nettali moom saar yi mbiram dee ak dekki ak ya caaju yëpp moom lay nettali moom saar yi am na xadis boo xam ne sax Abdullah ibn Omar dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na man qara'a tabaaraka lazi mulku ak sajada te mooy alif lam mim tansil nga jàng ko baynal maxribi wal xisaail axira maanaam diggante timis ak gexe ku ca jàng suuratu sajada ak suuratul mulki nee na fakka annama qaama laylatul xadri dafa mel ni guddi laylatul xadri dafa ñëw nga dundal ko te loo ci ñaan sunu borom dana la nangul sunu borom dana la wuyu ci sag ñaan waaye daal lam gën a màcc jëm mo suuratul mulki mooy hiya munjiyatun la maanaam laa yu'asabu fi qabrihi li an annaha tujaadilu an saahibiha yawma alqiyaamati fa tunjihi min annaari mook sóoratul mulk képp ku leen di jàng ñoom ñooy doon sa avocat yowmal xiyaam boo duggee ci bàmmeel ñooy doon sa avocat sunu borom dala la musal ci safara fegal la ci lépp luy xeeti safara. moo tax munaasaba boobu nag yonent bi sallam wax ci lu bari bari moo xam ca naafale ya moo xam ca jàng ga solo gi am solo nag moo tax sëñ bi mu ñëwee moom it booy xool ba tey munaasaba boobu rek la dal di ñaanat borom sunu borom may ko lool rek mooy yàlla nag ma fegal. lépp luy kukuk lëndëm ak tartar ak malaaka yi may laaj ci biir bàmmeel te suuratu sajda ki koy jàng malaaka yi duñ la laaj munkar ak nakiir waaw te bàmmeel lëndëm na tar na la war dina ñaari malaki yi nga xam ne ñoo lay laaj ñoo njëkk a tar ñoo njëkk a ñàng ñoo ñettee bu ñëwee di la di la laaj te fekk amoo tawhid gu dëgër amoo iman gu dëgër kooku raglu na sëriñ bi ñaan fi lim fii ñaan yàlla wal taq yàlla nag ma yàlla na nga fegal xal bi sama xol ndax ñaareel xol mooy lëndëm xol mooy jàq ñaari malaayka yi bu ñu lay laaj sa xol mooy tiit moo tax mu ne xol bi la ñaan nag yàlla musal ko ci na nga fegal sama xol addu jaa kukkug lëndëm wa siddat ak tartar wa saayilin ak ñaari way laaj yi waatan ak lépp yu lor di sa jira ci barke suutu sa jira li yëpp mbiram bàmmi la ci nama kukkug yeeg tartar yeeg ñaari malaayka ñëw di la laaj ak lor yeeg yëpp yàlla musal ma ci bi sajira ci barkeb saar yu ñuy wax suutu sajira sajda nag lañu firi mooy saaru sujjóot da bokk ci saar yi nga xam ne dañuy taamu bu nit ki di jàng alxuraan bu ci yegsee mu sujjóot moo tax ñu tuddee ko suratu saaro saaru sujjóot